mbokki Sénégal mbokki réew mi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 saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 ñaari mbër yi fi nekkoon roi des arènes te ñàkk ko Eumeu Sène et Balla Gaye 2 à la reconquête de la la journal ba bind muy Balla Gaye 2 di Eumeu Sène ñoom ñaar ñépp ku ci nekk am nga mission wu jëliwaat couronne ba donte bëre wu ñëw ko yor waaye ku ci nekk ci ñoom sa xel ma loolaa ca ne yax ya Jóob Yékini ma yoroon couronne ba le 22 la ko ñàkk foofee ca stade Demba ba muy tas ak le fils de Double Less Balla waaye Balla accomplir ko coppet la def

combat ci Eumeu Sène nekk combat revanche nekk combat royal mu ñàkk couronne ba ñàkk revanche ba Modou Lo yóbbu lépp parcelle guddi yi nag Balla Gaye de loo ko ne moo nekk sa xel mu ne la couronne bi ca Bombardier la ko jaari ji te jàpp na ne bu noppee ku yor bi war naa mën a bëreeg yow te bu bëreeg yow gëm na ne da koy nanguwaat bu dee Eumeu Sène moom ca Lac de Guiers numéro la jaari ji jàpp ne bu paree ci moom mën naa dem ca ka yor ba moom it bu ko fa na ne bu Gueye ñoom ñëpp nekk ci la reconquête de la couronne Balla ak Eumeu ku ne couronne bi ngay wëri ña war a wëri seeni performance ak seeni ndam mooy mbëri Fass ya frère ñuy wax Lac Rose ak Pape Ndoye Lac Rose bu Fass amutoon kenn ku nekk ci làmb ji te ama woon yaakaar ci moom amul menn mbër mu nekkoon ci làmb ji te bàyyi woo ko woon xel ngay adversaire am rakkam ci làmb wala magam ci làmb xamoon nga ne kii mbërëntaan wante tolof le journal joxe na ci xalaatam moom la moo xamle mooy public bii ñuy gis day représenter ba ci économie lamb ji lamb ji mën nañ ne mbooleem lu ciy dugal xaalis ci ëpp ci public bi lay jóge huis clos bi daal bañu ko waaye day fekk état bi appuyer promoteur yi appui ba nag du nekk appui bu ndaw ndawaan waaye dañ koy appuyer ba mu dëgër këcc faaw ñu taxawuñu bu baax ci koppar ba ñu mën a organiser ay huis clos li ko naqari ci saison bi nag moom Serigne Modou Niang ñëw na ci du leen lu dul drapeau papam ba maître Abdoulaye Wade bi mu jot a organisé moom la mu xamle mooy bu doon tey drapeau sama président boobee laa njëkk a organisé bu doon tey la defoon dootuñu ko defati moom ñàkk jëriñoo ak Aline loole la journal ba xamle gannaaw ba ñu jógee ci seen combat boobee bari woon coow bari deret xeexoo xiiroo ngaayoo taxoon bile combat mujj ñu ko reliquat moom Jordan plan de relance ku ko ko amal boo ko andee mu jël mën nañ ne ci situation bu compliqué la toll sept victoire six défaite benn match nul foofee la Jordan taxawee ca victoire yee saa kajoor numéro 2 la daan Pape Diop 2 Makhari Mbeng Santa ñi ngi mitrailleuse Boy Naar ak Forza six défaite yi super jamono moo ko daan Douglas Simel Fay super étoile Sa Thiès ak rëg-rëg benn match nul ba mu am digganteem ak Modou Awala li ni mel moo a fas ci yéene kaay bi ñu mbokki Sénégal mbokki réew mi